émission Idy 2019 ñu ni nag jigéen ñi ñëw doo ay jigéenu tàccu ak jigéen ñuy fekki balance rek Aïssatou wax na ko lépp da ngeen a tënk dara ci këyit bëgg ko waxtaan ak seen i càmmi nii bu ñu faroo ni doxal loolu honorable nii bu ñu la wala wayalee kondaama war nañ la ko wax ndax bi Macky Sall di jënd député yi ci assemblée nationale boobu yaa ngi nekk député waaye na Adjaratou Ndeye Maguette yi defoon na Marie Coumba Louise Niang defoon na Seynabou Wade defoon noonu rek nga seen tànk honorable vous avez programme bi dafa nekk programme boo xamante ni li ñuy njëkk ci wax ci njëlbeen bi mooy kenn tëjul ci nekk rek bindal ñu ko dafa nekk programme boo xamante ni dafa nekkoon ñun ak suñu ay càmmiñ. ñun ak suñu ay doom ñun ak suñu ay njaboot ñu taataan lépp difficulté boo xamante ni maanaam coono bi ñu dundee ñun coono boo xamante ni ñi fi nekk indiwuñ ci benn saafara ñi fi nekk dañu dañu jàpp dañu noot sax ñi fi nekk dañu gën a bëggoon ndóolloo ñi fi nekk dañu bëggoon di dëkkal ci ñun ñuy tàllal suñu loxo ñu ñuy jox programme boobu ne loolu dafa dafa nekk loo xamante ni rus nañu Sénégal fi mu toll jigéen ñeeg ndaw yi ñu leen di sóob ci loolu programme bi dafa nekk programme boo xamante ni nekkul euh, loo xam ne dañ naan jigéen ñi à part góor ñi à part déedéet dafa nekk loo xamante ni dafa dëxañ góor dafa dëxañ jigéen ak xale yi ndaw yi ci biir ñu nekk loo xamante ni ñoom ñooy suuxat développement dëkk bi ni ma ko doon waxee domaine bu nekk yëkkati naa ko sunu buntu jàppale jigéen ñi ci programme bi lan la ñoom ñu dem mën a dem ci koom-koom bi ñun ñëpp xam nañu ni lebal xaalis bi ñuy lebal xaalis daf ñu gën a sonal da ngay dem ñu lebal la ñaar fukki junni balaa weer bi di dee intérêt commencé nga commencé fay bi nga ci dem a dem ba nga xamante ni yow da dem di lebi jiwaat pour mën a ñëw bi fay ñu gis ni programme bi loolu ak jël ay ni tuddee ko ay bourse familiale di leen jox loo xamante ni dañuy ñëw toujours sa buntu di saraxu loolu jëmeewul fenn jigéen ñi loolu jëmeewul fenn suñu doom yi ak suñu jarbaat yi programme bi ne dinañ def ci biir loolu dinañ dem crédit yi dinañ ko seetaan dinañ def noo xamante ni ñun suñu bopp dinañ mun a liggéey liggéeyal suñu bopp am jumtukaay yoo xamante ni moom la ñuy liggéeyee mun tuddee ko ay transfert d'actifs doon nekk rek formation jox la kayit ca la ngay liggéey loolu lañuy ñuy seet càmbar ko li nga xamante ni boo ko amee bu doon da joxe benn mën nga ci am fukk ndaxte dina gën a gaaw dina gën a baax dina gën a rafet ñu jox la jumtuwaay yooyu pour que li ngay liggéey mu gën a gaaw gën a baax gën a gën a gën a mën a la indil ay ressources ñu jëm ci wàllu paj mi ñu gis ni jigéen ñu bëri tey dañu am ay problème ca ba ñuy am doom wala ba ñuy ëmb wala ba ñuy nampal te loolu yëpp dem na ba nga xamante ni euh, jigéen ñaa ngi faatu seen bakkan parce que fa ñuy jóge ak fa ñuy dem ci hôpital yi dafa sore programme bi ne dinañ am hôpital yi ci ci région yi dinañ am ay yeneen façon hôpital ci département yi ba ci communes yi fu ci nekk ba nga xamante ni sa wàllu wér gu yaram dinañ ko jël ñu ne am na ñoo xamante ni ci ci sunu biir ay jigéen lañu waaye seen am doom dafay metti ndaxte dañuy dugg dañuy dañuy dund ak ak handicap ñiy dund ak handicap quelquefois pour ñu dugg ci salle d'accouchement sax dafay poser problème parce que condition yi fa def permettre lu leen ñu dugg ci ña leen war a recevoir léeg amuñu formation bu jar ni war na dëppoo ak la ñu leen di wax suñu programme ne bu boobaa ñoom dañuy jël dañ leen di ciblé ñu nekk benn cible boo xamante ni dañu leen di jox li ñu soxla ci dañu ko soxlaa dinañ jël seen doom yi aussi faciliter leen ñuy faju te kenn du leen fayeeku dara donc loolu dafa nekk programme boo xamante ni dafa nekk programme social boo xamante ni ñun boole nañu ko ci wàllu mbay mi ci wàllu mbay mi ñu ne boo demee ci tefes yi da ngay gis jigéen ñu bëri di fa jaay di jëndantu waaye nañ koy jaayee dafay dafay dafay mel mel ni pour ñu faj seen soxla bu teew kese la waaye mënuñu denc dara programme bi nag dinañ ko def noo xamante ni la ñuy liggéeyee pour dem nappi dañ koy dañ koy yombal waaye même bu dee dañu war a transformer produit ya ngay am seen jën yi dootul nëpp dinañ ko dinañ leen jox ay jumtukaay yoo xamante ni jën bi bu jarul di ko mun a def neneen di nga ko mun a mun a def euh, conserver maanaam di nga ko mun a am glace nga denc ko ci wala di nga ko mun a def euh, keccax wala di ko mun a def beneen boo xamante ni war nga ci mun tamit am am ressource donc mu bari yoo xamante ni tënk nañ ko ci programme gis naa Badara di ma xool muy loo xamante ni dafa tax ñun jigéenu coalition IDI 2019 ñu gis sunu bopp ci biir programme boobu noonu ñu gis ne programme boobu noonu dina tax ndool gi nga xamante ni ñii fi nekk ñii fi nekk di pasar pasaree sunu xaalis bi di ko séddale au lieu ñu jël ko dugal ko ci soxla sénégalais yi ñu bàyyi ko ba tey di dënd seen ngor ñun suñu programme nekkul programme boobu dafa nekk programme boo xamante ni jigéen ñi dinañ fi jóge am dund bu baax dund bu sell dinañ am vie bu décent waaye dinañ mun sax suñu doom yi ak sunu doomu doom yi ñu defaral leen loo xamante ni bàyyi leen loo xamante ni incha allahu rabi dañ ciy ànd ba nga xamante ni dootuñu misérable donc ma bëggoon tënk loolu rek di gërëmaat ñi fi nekk ñëpp di leen sant loolu laa amoon lu ma ci sànni ci muy yóbbante nag ñu am yóbbante boo xamante ni dañ koy yóbbante président Idrissa Seck te jigéenu coalition bi yëpp a ko wax yóbbante bi dafa ne dañu ne ñii nga xamante ni ñoo fi représenté coalition bi mu ngeen demee ci président Idrissa Seck ngeen ne ko jigéenu coalition bi nee nañu d' accord nañu te kontaan nañu ci programme bi ndaxte programme bi dañ ci gis suñu bopp jëlaat nañu engagement ñun jigéen ñi jàppale ko ba nga xamante ne objectif yi nga xamante ne dañ ko ci séntu ñun dinañ ñëw liggéey ko moom ak moom pour ñu mun ko jot wante nag ñi ngi koy wax ni wax dëgg yàlla que ni ñun ñi ngi taxaw fi ñu taxawoon nekk benn nekk benn say rek incha allahu rabbi pour gunge ko ci pale le 24. février boo xamante ni coalition bi gagné na ñun borom musóor yi ñoo koy gunge ak jeunes yi yóbbu ko pare bi merci beaucoup